mbiruk Ousmane Sonko ku lu ñeel recours ba ca cour suprême bi nga xam ne agence judiciaire de l'État dafa xamle woon ne bëgg na koo def waaye ba fii mu mel ni mbir yi dafa tagatémbe wala bokk fu ci agence judiciaire de l'État toll moom Yoro Moussa Dia mi agence judiciaire de l'État gannaaw ba nga xamee ne jamono ji dafa nekk di def lépp ngir mën a fexe ba dal di gàntal candidature Ousmane Sonko ci lu ñeel présidentielle yu 2024 ci jamono joo xam ne jëlee ko ca juge daal di rendre lii di ordonnance am niki aljuma ji ñu weesu moom agence judiciaire de l'état waroon mën a déposer recours am niki démb ci altene ji waaye ba fii dafa mel ni dafagul lu ni mel bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di Les Échos yéenekaay bi di ñu fàttali ne moom agence judiciaire de l'état bu ñu gisee ba juge Sabassy Faye ma jiite tribunal d'instance bu Ziguinchor joxe woon verdict am ci ëllëg ba la daal di woon déposer ab recours am waaye ba fii Yoro Moussa Diallo mel ni daal kuy yéexal mbir yi amaana jombul ne dafa am ay stratégie yoo xam ne mu ngi ko nekk di teg jamono ji ñu gis ne ba fii amagul dara loo xam ne moom def na ko ñu bëri di jàpp ne nag moom Yoro Moussa jàlloo boo moytul daal dafa bëgg a xaar ba fan yu mujj ya ngir dal di door a mën a taxawu ci li nga xam ne moom moo jëm ci recours bi mu fas yéene déposé ca kanamu cour suprême waaye mu mel ni nag loole du arrangé kii di Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci yéene bi di Les Échos ba tey gannaaw ba yéene bi delloo di xamle ci fukki fan la toll jëlee ko ci ci jamono joo xam ne maanaam bu ñu koy leeralal lii di ordonnance bi dañu ko daal di renvoyer signifié ko vendredi quinze décembre bi ñu weesu kon nañu jàpp ne vendredi bi du bokk ci lim gi naka noonu itam bés bu mujj bi du bokk ci li nga xam ne moom mooy doon décompte bi loole nag bu ñu ko waxee mooy ak décompte bi agent judiciaire de l'État décembre laata zéro heure ngir daal di mën a déposer li nga xam ne moom moo di recours